xanaa di doole rek di jaalaat mbokk yëpp di jaal suñu bopp waaye di jaal képp kuy jullit tey wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci dem bi nga xamante ni suñu wayjur bu baax bii di Baye Alxaaji Moustapha Guèye wuy na ko boroomam Baye Alxaaji Moustapha Guèye jàmbaarul islaam ji Baye Alxaaji Moustapha Guèye ca alquran ja Baye Alhaji Moustapha Guèye ca tontu bataaxal ya Baye Alhaji Moustapha Guèye ca lettre musulmane Baye Alhaji Moustapha Guèye ca mashahidu yawm al qiyam Baye Alhaji Moustapha Guèye ci axiru zaman Baye Alhaji Moustapha Guèye ca télévision ba di ñu leeralal Muhammadun rasulullah film yi fi doon jaay Baye Alhaji Moustapha Guèye ci foo xalaat ci réew mi ba ca bitim réew fu ci nekk mu def fa liggéey bu yaatu muy Europe bàyyi alaaj Moustapha Guèye ca makkatal mukarrama di dem ba xëy doon commissaire u pèlerinage bàyyi alaaj Moustapha Guèye ak taxawaayam bu yaatu bi mu def ci lislaam jiite woon ñi nga xamante ni ñoo doon imaam yi ak borom xam-xam yi yàlla nañ ko yàlla fayal macha allah li ma waxoon rek laay waxati mag ñaa ngi dem de wax dëgg yàlla mag ñaa ngi dem te jëmm ji dem di bàyyi Moustapha Guèye ah wallahi ku xam te ràññee ku xam te ràññee di xam bu baax a baax li ngay wax ci moom loolu daal laay bëgg rek nit ñi xam ko ku xam te ràññee di nga xam bu baax a baax a baax ba muy dund sax lan nga war a wax ci moom rawatina bu génnee àdduna loolu moom maa ngi ci yee nit ñi ñu bàyyi ci xel wallahi bari na lool koo xamante ni ngiiru imam Malik jekku nga ko xam nga àtte yu bari ci lislaam moo la ko baaxe duñu ñu fàtte mukk ba muy def tontu bataaxal waxuma sax lettre musulmane bi ñu miin ci télé bi waaye tontu bataaxal daan ko def ak soxna Marguerite Adja Marguerite Thiam muy laaj mu koy tontu ndeysaan nga xam ni rek xam-xam rek moo wóor dama daan wax ni Baye Moustapha Guèye daan na jël trente minutes dàbba tontu ci trente questions da daan jël trente minutes tontu ci trente questions li ko waral mooy li nga ko laaj lay tontu bu tontu bi jeexee mu jeex man soo ma joxoon fi mu ne trente minutes su ma la ci tontu lay ñaari tontu santal te sax ñaanal yàlla la ma lay tontu jub lu ne dinaa ko ci dugal ak lu ne mbëq ci moom yooyu musul nekk ci yooyu waaw boo ko laajee day tontu la mu war a tontu ku wàññi ci julli mun la sajada qabla salaam moom dafa wàññi mun la mun la buy sujjoot day sujjoot qabla salaam ku yokk mun la day sujjoot ba'da salaam mooy ginnaaw ba mu sëlmalee ku def lii ci julli mu tontu la loola bu dee koor noonu azaka noonu miraas noonu day day tontu la mu war a tontu yem ca waaye ñun na comme dañuy man-manee ak di jaay ni mën nañu lu ne lañ cee dugal ba dangay ngay mujjël réeral sax ki doon ki doon laaj-laaj bi loolu jàngat nañ ko ci moom bu baax a baax a baax a baax baax liggéey yu am solo yee na ba tàyyi nit ñi nag ci lislaam yeete na ba tàyyi dégg ngeen vidéo boobu mu lay wax ni la liggéeyu lislaamam jural na ko ba tàyyi ñu woo ko police ay yoon yoon yoon ba wax na ci sax yoon woo xamante ni commissaire ba def ko ni am na luñ ne yaa ko wax de yaa ko wax mun ko waxuma ko de mun ko mais yaa ko wax mun ko waxuma ko mu génneel mu tegal ko kaset bi mu déglu mun ko yaa wax lii ba léegi rek mu Moussa ni ko waxuma ko de mun ko mais yow li nga bëgg a wax mooy lan kii du yow mun ko déet waxu yàlla la man li yàlla wax rek laa wax kon man du sama wax yàlla wax dina kon du waxam yàlla moo wax wala yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax lii ñuy def de tafsirul quran wax dëgg yàlla yàlla defaloon na ko ci jagle lool ba léegi ñun du ñu noppi di déglu ay waxtaanam di déglu ay tafsirul quranam ndax baat firi baat ak baat yàlla def ko ci mayoon lool allahu akbar firi baat ak baat rek indil la baat bii bismillah yi maa ngi tàmbali ci tur yàlla arrahmaan yàlla miy xéewal ñu si àdduna arrahim di yërëm ci soob ci alaxira alhamdu mboolem xaaju sant yi lillahi ñel na yàlla rabbil alamin a ñuy borom mbindéef yi te lu jiitu mu lay def loolu la mu bëgg asbaabu nuzul yi dina la ko indil dina la leeralal li mu bëgg ba mu leer sa bopp ba nga xam ne ñun waa daara ji nga xam dañu doon bëgg a mën a def tafsirul quran soo koy déglu def tafsir dalay lay yomb lool ndax baat bu ne dina la wax ni muy fir li muy fiir te déggoon wolof lool nag macha allah waaw xamit réew mi xam fu ci nekk culture ba fa nekk macha allah kon wax dëgg yàlla Baye Moustapha daal demam tiis na lool ci nit ñi yàlla xam na lool allahu akbar léegi rek maa ngi koy wax daa ba ni ndeysaan li ma def ñagg-ñagg xol mooy yéene bi ma amoon ci def ak moom émission ndeysaan masjid jaar ko baax nag waa famille yëpp waaye jaar ko nag koo xam ni njabootam la doomam la ci biir doomam la ci bii te Ahmad Bekkaay macha allahu Bekkaay nga xam ni moo yor Géejawaay info ñëpp xam ko mu bëggoon lool Baye Moustapha Baye Moustapha it fonkoon ko moom moo ba coordonné loon ba ñu war a am maag moom benn jotaayu émission yoon wi comme ni ma ko defoon ak Baye Matar Seck tam ñoom ñëpp noonu laa ko bëgg di def ñëw ñoom keroog. mu jox ma kàddoom te kàddoom dafa rëyoon ci moom loolu moom Baye Moustapha ba jour bi ñu ko war a enregistré ma war a dem institut islamique fekk ko fa dàbb ñu war a def émission bi jour boobu la suñu baay bu baax ba al imam alhaaji mouhamadul amin sarr Baye Lamine saar ndeysaan ca HLM ya léegi rek dàbb ngi naan ay waay ay waay kañ la ñuy amati imam bu mel ni Baye Baye Lamine ndeysaan cofeel bi ko nit ñi ëmbaloon moom it bari lool bis boobu la génn àdduna mu ne ma sama doom lii de mooy gàllankoor bi ba tax ñoo def émission kon loolu moo tee ma man leen a jël émission boo xam ne dama fàttali mu doon ko bu ma amoon ak Alaaji Mbaye Moustapha Gueye loolu moo doon gàllankoor bi lay ndeysaan bis bi mu ma joxee ak am ba ñu war ko def guddi googu nelaw ma ndax mbégte waaye yàlla moom ak li muy dogal rek turido urido wala yakunu illa ma urid waaw kon miin ngeen ba tàyyi samay tafsir ni ma ni may tudde Baye Ibrahima Sakho maam ju baax jooju maam Ibrahima noonu lañ ci day cité bu baax Baye Moustapha Guèye ak seeni kem wallaay suñu mag ñi jàmbaar la ñu li ñu liggéeyal islam rëy na kon ñoom tolloon nañu âge boo xam ne defar rek lañ fi mën a nekkee ñu fi nekk di yàq ñu fi nekk di jaxase ñu fi nekk di yee ñu nag suñu problème mooy yenn saa yi suñu offeur yi suñu deretu ndaw mooy tax dañuy defee ni toj kaañ wax wax yu rëy rek moo ñu ci mën a génn ñoom mënu talul woon loolu yàlla xam na loolu moo toll tollatul woon fu muy waxee ci réew mi lenn loo xamante ni kat bu ko waxee mu indi fitna kon moom li ko waroon a tax di jóg rek mooy saa yu réeroo ndaree am moo xam diggante parti la moo xam diggante réew mi ak ñi nekk au pouvoir muy defar di wax léegi nag euh, réew mi nag moom dafa metti dafa metti euh, yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu xam liggéey bi mu liggéeyal lislaam te ñu téye suñu làmmiñ yi nag ci di wax waaw yàlla nañu yàlla dimbali loolu mbokk yi loolu benn ubbi la rek bu ñu doon ubbee di ko fàttalikoo suñu baay bu baax boobu tey ñu war a jël nag cent huitième surat téeméereelu saar bu teg juróom-ñett muy suratul kawsar suratul kawsar mbokk yi ci saaru màkka yi la su may présenté saar bi aay yi mu am de ñetti aaya la inna aataynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaniaka huwa al abtar wax na it ci ngëneel gi nga xamante ni yàlla defal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi dina ci wax ci dox gi mu koy jox yu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo fii ci àdduna ak alaxira ak dex jox gi mu koy jox dex gi ñuy wax alkawsar am na ñu koy tuddee dexu kawsar te it loo déggee loolu daa xamal ni la borom xam yi wax nañ ci loo baree baree baree baree bare waaye benn wax mënta gën a noppale li yonent bi alayhi salaatu wa salaam boppam ci kawsar waaw ak yeneen i xéewal yu yaatu te matale yu ko yàlla defal moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam doy na sëkk ay xéewal ki yuy matale mu xëy ni ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum niamati wa raditu lakum al islaama diinan kon daal am na lu bare bare bare bare wax na it yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko saxalal ni ko del julli ak nu mu mën a demee waaye rayal sa gàtt rayal sa gilleem rayal sam xar rayal sam nag sa béy ba mu mën a doon waaye daal an naxr ñu ngi ko gën a miin ci li ñuy def gilleem muy loj gi ñuy loj gilleem saar bi buy jeexal day bégal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ni ko sa noon du la ree bu ree du kekku sa noon munu laa ree te bu la ree du kekku ca reewam yooyu mooy reetaan ba kontaan ba yëg ni am nga mbégte ci sa noon bii ba sa xol sedd sa noon mënu koo am ci yow sallallahu alayhi wa sallam Yàlla ni ko loolu sa noon du ko am bu mu sonn bu mu sonn loolu du ko mën a am déedéet du ko mën a am kon saar bii dina dikk ci loolu wax ko ñi ko doon noonu ak di ko bañ ni ñuy mujj toroxe képp ku bañ yonente bi ni ngay mujj a doyee dee ni ngay mujj a ñàkke bopp waaw kon koy ni ko macha allahu àdduna si moom ni ñu fii jógee ak coona ak i fitna ñoom ñooñu la noonoo ak ñàkk gis benn yiw duñ ko fi am waaye yow moom li la yàlla dencal ci àdduna ak àllaaxira lépp duñ ko gis xamal koy ni ko moom moomu de nga xam ni dalaa bañoon bay wane ak mbañ moom dog nañu yiw ci moom ci àdduna ak àllaaxira ba kenn dootu ko tuddati dinaa ci dikk waaye jamono boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam turam di gën a yëkkatoo alal manabiri wallahi waaw place yëpp ngay dégg niñ ko fay tuddee waaw minbar yeeg jotaay yëpp boo déggee ñu tudd sayyiduna muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam ji footal di ko dégg waaw yàlla di lënkale turam waxoon naa leen ko fi ba ma leen di firi suratul xashr euh, surtout charx waaw mu ni waaw ko xat booba waxoon ndeysaan ni ko bu julli jotee rek bu noddkat bi di nodd rek bu ne ashhadu rek xel yi dem ci yow xel yi dem ci yow ndeysaan loolu nag mooy continuer ci feek jamono ngi fi rek waaw ba keroog ab jamono di jeex fu ñu tudd yonente bi alayhi salatu wasalaam rek ñu xam ne tudd nañ ko mag tudd nañ ko màgg tudd nañ ko rëy rëy léegi nag lan moo waral yàlla xëy jeex yonente bi alayhi salatu wasalaam xéewal yi ndax ba xam nga bi kenn du moom gis nga euh, yàlla bis boo yàlla bis bu la yàlla boolee ci ay soppeem ak i tànneem bu doon tàndee mu suñu boroom wala doon soppeem yàlla yombul de yombul de dafa diis gànn gànn la diis woyoful te du mas a woyof sallallahu alayhi dundam yëpp coono la ci teg lu ma jublu ci loolu mooy moom bi muy gane àdduna fekk na baayam di Abdullahi génn àdduna ñaari weer ñu mu doon mu nekk lu ñu ëmb moom sallallahu alayhi ca Amina baay ba génn àdduna dama ne nag daab ba yonent bi alayhi salaatu wa rek lañuy toog di nettali bañ ko ëmbeeg ba baayam di dem di seeti yaayam Amina yooyu nit ñi di ko dégg muy neex ci seeni nopp yonent bi rek waaye kuñ fi toogoon di la waxal loolu naan la waaw bis bis bi sa bis bi sa papa demee di seeti sa yaay ñu ñu war a commencé seen ngor ko la ko ngan ko yow bu ma waxati sa waxi réewandi yi dama ni am na sax lu gën a jege lool ku seen sa papa bu ñu am sa waay sa papa ngeen di ñëw de danga koy toléré waaye sa waay sa jëkkëru yaay mooy ñëw nee de danga mais kii moo ñàkk kersa man laa sama jëkkëru yaay ak sama kenn et bu dee mooy sa papa di sa jëkkëru yaay benn la rek mais baat yooyu day gis ci nopp nit waaye sallallahu alayhi wa lu luñ ko waxal mu neex ci nopp nit ñi parce que yàlla def loolu ci moom sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ñeenti at wala juróom benni at ama arbaatin aw sittatin halakat ummu nabi moo xam quatre ans la wala six ans ndax temps ma ko mayul bu mu ci mën a doon rek si la amina génne àdduna abdou mutalib yor ko huit ans mu génn àdduna ama thamani wafatul jaddi dahana min wa xaatimin wa ancharu anatal karami mu dem bàyyi taxam yor ko abu taalibin mu dem ba am quarante neuf ans ama duhmin abu taalibin ak aïch ak xadija mi doon soxnaam kii bari taaw lool kii bari alal lool ñu ni kii li tax mu fuuy di yab nit ñi di wax lu ko neex c'est parce que xam na ni bàyyam bii dafa bari doom kenn du leen mën a song waaye xam na ni it amin ki xadija mii di soxnaam dafa yor alal te ku mu joxul dootoo commerce te ku def dara jëkkër mu mer yàlla bëgg leen a wan ni kii man maa ko aar la ma waxoon ca ba muy judd qaala lam laaku rabbal xalqi sayidna a yabqa nabiyuka maadudan min al yutim mun leen laa shakka anni xaafiduhu wa rabbuhu wa awnuhu kaafihi fi ni moom moo koy aaral boppam moom borom bi subhanahu wa taala koy làq fu yàq yeggul moom suñu borom subhanahu wa taala mu ni nag yonent boobu nag ndeysaan yàlla jëlandoo abu taalibin di ñu koy wax abdu manafin mooy baayu aliyun mooy baayu oqayl mooy baayu ah, jaafar ak ñoo ñëpp ak xadija mi nga xam ne moo doon soxnaam ñetti fan la ñu rawante moo tax ñu koy tuddee ama duhmin atum njàqare ma waaye boo ko déchiffré da lay jox quarante neuf ans waaw quarante neuf ans bu ma bëggee gën a leer dama naan la del 4 la alkubeer cinq la miim 40 la mu jox la quarante neuf ans ñooñu génn àdduna te gis nga dàbba doom jugóor góor ju mu am mu génn àdduna Qaasim génn àdduna Abdullahi génn àdduna koy wax Tahir yenn saa yi euh, Roqaya dugg ci néegu say génn àdduna Zeynabu dugg ci néegu say génn àdduna Ummu Kalsum dugg ci néegu say génn àdduna mu yor kon Fatima yàlla dem ba jëmmi jamono mu am ak jéebéeram boobu ñuy wax Maariya benn doom bu góor bu ñuy wax Ibrahim Ibrahim demam histoire yu doy waar mu ngi ci ci riwaayaat yi nga ci am nettali nañ ñenn ñi nee nañ bisub tabaski la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nañ ko sang solal ko ay yére mu ànd mu ñëw ñu ànd julli ci ci bisu tabaski bi nee nañ fañ ko doon sang fala faatu ko doon waajale fala am ñu ne déedéet sang nañ ko sax ba solal koy yére ba mu génn seen baay bi ndeysaan xam nga baay bu baay bu mel ni nga war a mel sa doom bu la séenee day daw wut si la ñu ni mu daw wuti baayam bi sallallahu alayhi wa sallam bi yëkkati ko ndeysaan ni mu mel rek yëkkati ba ca kaw yàlla ni malakal mawti roccil ma ruu xale bi bala mu ko teg ci dënnam kon dabba sa soppe bi sallallahu alayhi wa sallam bi ibrahim mii di ñëw di daw di ko wut si mu ngi koy yëkkati nii yes ca kaw waaye bi mu koy teg fii néew la fa teg muy lu metti lool ci nettali ni ndeysaan ñu gis rangooñ yi di tuuru moom sallallahu alayhi wa sallam saxaaba bi ñuy wax Abdurahman ibnu Awfin as-saxaabiyul jalil bokk ci fukki saxaaba yi jëm àjjana dafa ne koy sang bi sang bi ñu de ñu ngi jaaxle yow de yaa ñu ni woon bu ñu amatee ku faatu bu ñu jooy te yaa ñu ngi gis ne yaa ngi jooy de daf ñu jaaxal de mu ne ko innal qalba la yaxsan xol bi daal moo am njàqare rek waaw xol bi mu am njàqare ni ko rangooñ yi nag di tuur waaw ay na laay na la tan rangooñ yi di tuur ndax li ci xol bi moo génnee rangooñ yi waaye nag wala naqulu illa ma yurdi rabbana suñu gémmiñ gi de duñ ci wax lu dul li yàlla gërëm wa inna ala firaqika ya ibrahima la mahzunoon ibrahima sa dem doon na tiis ci ñun du naqar nag ndax yàlla mën nga ñoo bañ a teg naqar waaye xam na ni daal tiis na metti na ibrahima moom ñu ngi ko denc ca baqe al arqadi boo demee ca baqe fukki junni saxaaba nga fa tëdd fala Ousmane ibnu Affan tëdd ñi jamoon ca yenn xare yi ndeysaan ñu mujj a faatu foofu lañ leen denc fa lañ denc ummahatul muminin soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa la ñu denc imaamu daaril hijra imaamu malikin foofu la ñu dencit ibrahima mii keroog nee nañu da dabba bi ñu koy denc gas bàmmeel bi boor ko dugal yonent bi alayhi salaatu wassalaam di bàyyam daf ko doon defal lu ñuy wax talqiinul mayit sëgg ci nopp doom ji doom ji matul ma majeurul tollul fenn naan ko Ibrahima bu nee la kuy sa borom neel yàlla luy sa téere neel alquran luy sa diine neel islam kuy sa yonent neel sayyidina Muhammad bu fa tudd sax affaire papa. saxaaba yi jaaxle Abu Darrin al-Ghifari as-saxaabiyul jalil ni ko sang bi ñun de dañu jaaxle waaw kii ngay wax nii moom matul am bàkkaar ñetti at la am xam ci bariwul at te si yow yow yow yaay baayam yow gën ji mi ndéef ndeysaan mu siggi xool abu dharrin al xifaari ni ko aka koo jar ndax fa mu jëm laa wóoluwul muy bàmmeel yonent bi nee fa mu jëm fi doom ji jëm la wóoluwul muy bàmmeel waaw ndeysaan si la waxee woon wa man abtaa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu mu ni ku yebu góorgóorlu ndax ku sàggan ba sa jëf tardeel la askan wa nga bokk dootu la mën a gaawe mu ni ku sàggan ba sa jëf tardeel la askan wi nga bokk dootu la mën a gaawe kon góor góorlu loo man ci sa jaamu yàlla keroog saxaaba yi gis nañ ndeysaan ni xol bi mettee ndeysaan moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag mu nangu dogalu yàlla waaw xam ne yàlla moom lu mu dogal ci ñun looloo ko neex lu mu defit loolu moo gën lu mu deful moom borom bi lu mu def noonu la dañ koy nangul moom borom bi subhanahu wa taala waaw fekk yegguñu foofu nag ba demu nit ñeeg dund nit ñi génn àdduna nit ñi yem ci ñun rek nañ yëg ni des nañ wax naa leen fii ni maam Thierno Birahim Mbacké maam ju baax jooju da ko daan wax nee na man man Thierno de li ma sant yàlla mooy lu yàlla def neex na ma su ñëwee ñu ko diw de moo gane àdduna mu ne alhamdulilah ñoo ni ko diw de moo génn àdduna ñu mu ne alhamdulilah ñun ko waaw sëñ bi ñaari mbir yu bokk ak benn baat bi nga ciy wax moo ñu jaaxal mu ne ki ko jëf kenn la muy borom bi jëf-jëf ji ki fi ganeloo ki àdduna ak ki génne ki àdduna kenn ki la te kooku nag man lu mu def daf maa neex radini bil qada rabbi musabirani mamshiq alhaj ala balaayika ya rahmanu ya allah mbokk yi loolu lenn la rek ci eh, li xew bi ñu dencee nag ndeysaan ibrahim ba sang bi ñëwaat toog ci kër gi ñu ne yàlla yabal délégation ci waxin jibril ñëw mikaayil ñëw israfil ñëw malakul mawt ñëw ndeysaan nee naa leen bu ñuy wax dëmm rey la jaare la mooy bii nag mooy moo jël doomu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba pare ñëw bokk ci délégation bii ñëw di ko jàlle si ñëw nag ni ko suñu borom nuyu na la jibril ni ko suñu borom nee na nuyu na la mu ne ko fay naa ko mu ne nee na xam na li mu la def mu ne waaw ndax jël doo doom doom doom ju doom ju ndaw yàlla jël ko dafa metti moo tax boo demee ci xadis ba yonente bi nee na bu yàlla defee loolu ba pare danaan malaaka yi xabattum ruuxa walada abdi jël ngeen ruuwu doomu sama jaam diw mun waaw mun leen xabattum samarata fuaadi dafa mel ni da a dem ba ca xol bari ngeen dagg ca mun waaw mun leen waaye nag fa maada qaala abdi lan la sama jaam bi wax bi ngeen defee loolu bu fekkente ni wax na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndeysaan mu ni ko xamidaka wa sarja moom day sant na la nangu na li nga do li nga dogal mu ni tabaxal leen ndey ak xale bii dem tabaxal leen leen kër ci àjjana wa sammuuhu baytal hamdi tudde naa ko këruk sant yàlla di sallallahu alayhi wa sallam toog jibril ñëw ak délégation bi jaale ko waaw moom nee na ñu wax la siggil ndigaale mu ne siggil sawal nee na yàlla na la yàlla yàlla na la may xolu muñ na am naa ko ba pare naa ko ba pare mu ne yàlla la yàlla na la ko yàlla attan loolu mu la teg mu ne wallaay attan naa ko ndax xam naa lu mu lu mu def moo gën mu ne nag nee na kontaan na ci yow de waaw dina kontaan na ci yow kon faaw mu jox la jaxal ci sa dëj bi kon faaw mu jox la jaxal ci sa dëj bi kon ni neen ñi di demee xam nga ndeysaan xew-xew bu amee ñu ne président wala délégation ba délégation présidentielle ñëw nañu da ngay dégg ñu ne enveloppe ba ñu indi enveloppe bi jógee présidence diis na toll na nii enveloppe bu mag la enveloppe bu toll nii la def nañ ci lii moom la ñu jaxale waaye ndeke ndeke président mënoo jaxal sa borom rek a mën a jaxal rési ndekete daal yow aayoo ci jaxal ah, ndekete yow aayoo ci joxe ki mën a joxe mooy sa borom xoolal li sa borom jox yonent bi alayhi salatu wasalam ni ko inna aataynaaka alkawsar <clears throat> yàlla ni yonent bi sallallahu alayhi jox naa la dex gu nekk ca àjjana mu doon sa propriété privée inna aataynaaka alkawsar subhanallah inna aataynaaka alkawsar waaw jox naa la dex gu ñuy tudde kawsar moom laa la jox moom laa la jaxale yow sallallahu alayhi wa sallam fa salli li rabbika wanhar ni ko dex la goo xamante ni nag sallallahu alayhi wa sallam nee na man shariba minhu shurba lam yadma baadaha abadan noonu la ko waxee woon nee na dex la goo xamante ni li ko wër rek daanaka ci o ci ci ci or lañ ko defaree ndeysaan mu rafet lool taalu lool ndox ma ca nekk neex lool ba dàq misk nee na foofu dey yëg leen ni képp ku ca naan képp ku ca naan ndox ma moo gën a neex lem moo gën a weexit neige glace nee na képp ku ca naan nee na dootoo marati ba mukk ku ca naan dootoo marati ba mukk inna naa al kawsar jox naa la dex googu bis ni tey sa propriété privée la yeneen yonent bi nee na yowmal qiyam damay taxaw bàyyi gars yi ñuy dugg di naan am na ñuy ñëw nag malaaka yi jiñ leen ni du ngeen dugg ma leen nii samay nit lañ sama njabootal du ngeen leen bàyyi ñu ni déet ñi xamoo luñ sos sa ginnaaw yàlla ni ko nag fa salli li rabbika wan xar fa salli jullil li rabbika ngir sa boroom wan xar lojal sa gilleem li rabbika ngir sa boroom ndax qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin yëgal ni lépp luy sama julli ak lépp luy sama loj lu may rey lu may jaf jaamu yàlla yooyu yëpp lépp lu may rey lépp lu may jaamu lépp dama koy def lillah mun ko kon fa salli li rabbika julil ngir sa borom waaye wan xar li rabbika nga loj sa gilleem ngir sa borom inna shaani aka huwal abtar aas ibnu wail mu bon moomu nga xam ne moo jur amr ibnu la aas bi yonente bi alayhi salatu wasalaam ñàkkee doomam jii di ibrahima ñenn ñi nee nañ ci beneen doom la ñenn ñi nee nañ xaasim ala kullin bi muy ñàkki doom dafa ni kii amul problème saa yu faatoo léppam dog ndax moom ku ma am mu dee kon bu deewee diinam ji dee yàlla ni ko inna shani aka kooku la bañ di aas ibnul wail balay waxal ni yow ku dog nga al abtaru da nga koy dégg mooy lu lu ñu dog maa nit bu amatul amul njaboot sax ba naan moom dog na famille ndax amaatul njaboot bu continuité maanaam ca famille ba kon mu ni ko da ngay dégg sax xadis ba yonente bi ni lépp lu nit di def mu am solo te tàmbalewu ko bismillahi rahmani rahim loolu lu ñu dog la mun ko inna shaniyaka huwa al abtaru kii lay bañ kii lay xas kii lay wax wax ju ñaaw ji huwa moom al abtaru mooy ki ñu dog ci famille moo tax ba léegi boo taxawee màkka naan man maay sëtu aas ibnu waay danaan la kuy kooku dañ koo xam waaye boo ne sayidna muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam di jóg sadaqallahu al azim mbokk yi mbokk yi mu ne ko inna shaniyaka huwa al abtaru yow de képp ku la bëgg a gaafal képp ku bëgg a teg ci yow sab der bii dara moom day mooy ki ñu dog mooy ki kenn dul tuddati moo tax sallallahu alayhi wasallam ba àdduna di tukki du ñu deñ bi ko tudd waaye Aas ibnu Waa'il ba àdduna di tukki kenn dootu ko tuddati te kenn dootu ko tiitaroo yàlla ñu yàlla defal dégg yàlla ñu yàlla defa topp seen sootul kaw salangoog yàlla ñu ko yàlla dégguloo bu ñu fi dajewaatee nag songaat sootul kaafiruun yàlla ñu yàlla may dégg ak topp aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafuurur rahim wassalaamu aleykum